ku ne xam na ne tey la saison bi di tëj tey la saison bi di tëj arène nationale foo sànni mbàtt mu tas ah mbokk yi ku ñu fi oo xam ngeen ko Ibulaay moo ñu fi woo xale boobu nga xam si ni bi mooy première fois mu tëgg làmb waaye mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax di làmb joo xam ne gis ngeen ni mu def arène nationale nit jiitu na ko fi waaye deful ni arène nationale mu mujjee ñëw am na mu def arène nationale mbokk yi dañuy dem dund ambiance ñu daal di ñëwaat ci làmb li làmb ji laaj tey dal adversaire bi ngeen bëree xam nga ko. xam naa bu baax. xeex wala luñ ma digal ma def. luñ la digal luñ ma digal rek ma def. luñ la digal loo ma digal digal loo ma digal ma def. xaysara cikiri caacoo. xaysara cikiri caacoo. mbokk yi ci arène nationale. xaysara cikiri caacoo. ah door. waay ci ginnaaw jël na ko jël na ko waaye xale yi bëre waaye ay bu mag ñëw làmb jeex na jàppante nañ xay sale ci kiri caacoo xay moo ñëwan ginnaaw def tent xay sale ci kiri Kaysara Cikiri Caaco Kaysara Cikiri Caaco Kaysara xëcc na geñoo ci ginnaaw dañoo jàppante rek mais bëriwuñu ñoo ngi jàppante rek mais barewuñu foog am ku ja risque bàyyi leen téere yi ngeen di téye seeni loxo eh eh eh kal mbot mbot mbot laa ilaha illallah eh Cikiri Caaco Cikiri Caaco oh Cikiri maa doo génn xay sa ne Cikiri mbokk yi ndaysaan journée bu neex a ngi nii waayi bu neex journée Ibulaay Ibulaay dafa méditoo lii Ibulaay yar gi ci moom yar gi moom rek wax dëgg yàlla war na méditoo lii eh eh dara amugul dara amugul amul jël amul jël amul de eh jël amul de eh jël amul xale yi lay nuyu. maa ngi lay fay ñëwal ci ni nga bëree. ah combat bëri nañ ko si jom fulla ak fayda. gérer nañ ko suñu borom ndam la la andi woon booy ñëw victoire moo ñëw défaite ak ndil mais yàlla moo dogal ñu ma si ndil ñu ngi masawu ñëpp di masawu waa Thiaroye ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp ku ñu jàppale si combat bi rek ñu ngi lay masawu bu baax a baax a baax a baax ndax ndam bu ndam moo ñu doxoon a jóg. ñëwal ci ni nga bëree. waaw ah, bëri nañ bëri bu rëy ndax boo xoolee li si biir géew yëpp man maa ko def maa contentement bu baax a baax li doon ñaan yàlla Ibrahima ku wax Ibrahima na Modou ku wax Modou na Ibrahima ba tax na benn lañ dañuy nduru ñaar waay kenn lañ li lañ ko doon ñaanal yàlla def ci réussir ni ñu ko commencé ci bisimilah yàlla nañu ko terminé alhamdulilah rabbil alamin ma am réussir total incha allah léegi la ñu doon ñaan. non Ibrahima dañ koy félicité vraiment ndax euh, nga def journée bu mel nii ci kuy soog a door mënuñu lu dul félicité la euh, di ko ñaanal nag comme day soog a dugg ñu ñaanal ko jàmm. ñaanal ko réussite totale ci yeneen journée yi di ñëw ndax yii la ñu soxla ki ci mel ni ay jàmbaar ku ci mel ni ay ibulaay et cetera yu mel ni suñ koy faral di am ñu bëri dinañ bëri te chômage bi dina wàññeeku lu bëri ci wàllum làmb. ku ne xam na ni bisu ibulaay bi dafa tombé 18 safar en tant que murid tey lan nga yëg ci bis bi. waa am mbégte rek ndax actuellement moom dañuy safar bu wee bi dee ba tey dañuy safar kon tey bu tombé li suñu feree duñ mën lu ñëw soutenir ko accompagner ko jàppale ko ndax moom suñ frère la di wax ne daal am nañ contentement am nañ mbégte bu baax ndax promoteur li la bëgg ñëw stade bi taaru stade bi fees nit ñi dañuy kontaan promoteur yi dañuy gën a bég te yaakaar naa ñun lii mooy suñ fierté kon dañuy am mbégte rek di ñaan yàlla yéen prochain combat mi ñëw dàq yi ndax loolu lañ soxla ci làmb loolu la ñuy xaar tamit champion yi nga xam ne moom lañ dëgg nga génn si journée bu rëy journée boo xam ne ñëpp nangul nañ la yàgg nañ laa nangul waaye da nga tëgg journée bu rëy bu neex nga boole ay ndaanaan fàllu saison bi tëj na tey saison bi di ñëw fan nga jëm. waaw non ñoo ngi te am nañ yaakaar incha allah dinañ ci liggéey ndax euh, yaakaar naa li ñu ñëwee arène nationale muy le 20 passé dinañ ñëwaat le 30 incha allah le 31 décembre ñu ngi waaj ay innovation dinañ ci waaj lu rëy ndax nag ku yokkul da ngaa wàññi. waaye Ibrahima journée nit la ku yàgg a sonn ci ñun nag waa kon ba même bisam dañ ko a taxawoo. bisa man nii la war a mel quoi am nañ contentement bi ko ñëpp wuy see moom nit ku baax la ku nangoo sonn doomu aadama te ñun comme li ñu wax rek benn bopp nekk nit ñoo xam ne seen biir mbër yi ak amateur ak promoteur yëpp nga jëm nga jëm ci am adversaire boo xamee coow li bari na sa digganteeg Mama Lamine waaw sama digganteeg Mama Lamine yàggatul le premier octobre incha allah maa ngi de ci géew bi man ma ko si bilaay mu liggéey ba mu liggéey amateur kontaan may dem damay liggéey incha allah. dafa war a liggéey ko. waa day liggéey comme maam ak moom bu ñu bëree ba pare ñu xam ne ñi ay jàmbaar ñoo doon bëre mais bëgguma ñu naan ay góor gopp doole wala dara bëgguma loolu dama bëgg ma am ñu bëre ci fula ak ni mu doon bëree mu bëre koog man. Franc maa ngi. maa lay fay. tey ngeen ñëw ci bis boo xam ni mooy bis bu rëy ci la première fois xale bu mel nii muy Ibou Laye dégg lu mel nii tey en tant que lutteur tey lan nga ñu mën a sa diggante waaw Ibulaay da di suñu waay di suñu copain xam nga chaque jour ñun ñooy ñun suñu nii toog xam nga comme mbokk mbokk doomu yaa koy jur ñun ñëpp on est ensemble li lañ ko ñaanal dugg na ci làmb ji xam nga di wax tamit yàlla mu doon combat mu mujj na tëgg ay combat yu bëri bëri bëri na dem ba tëgg roi des arènes bi loolu lañ koy ñaanal parce que suñu waay la te borom baax la. bi nga ñëwee ànd a roi des arènes stade bi ñëpp jóg lan nga yëg Franc. non bul wax roi des président. président. waaw la ñu kon kii mooy cinquième président. ah mooy président bi dafa leer. sa waay ci ministre yi la yaay ministre. non yàgg na yàgg na André Senghor. bëggee bëggee. André Senghor xale bu baax. mais bëggee bëggee bëggee bëggee naa la. bon président yow gis nga gis nga gis nga di ko gars yi daree bu nekkuloon dara si dëkk bi duñ ko daree noonu champion la te dina ko gën a confirmer si kanam incha allah. réparé face Franc. mbokk yi bii mooy euh, septième combat de la soirée nañu eh kuba dal na fallu kuba bu dal na de fallu ñamante nañ loolay ñam am na lu xew ardo dana am de wala lan moo xew looloo ma jaaxal fii lu fexe arbitre sifflé waat na wax na dëgg bëri litis bañ baru saaku bi baaxul wóorul réparé na def denk te xam ñi xale bi muy bëral ndaanaan la bu ko respecté wul dana am déception de fallu foog mu jox ko cër bu ko bëggee daan bu bëggee daan la ki nga xamante ne mooy franc moom réparé ko. jël na ko du baax. door kaaw attention. bëggul jàppante bi réparé réparé daa bëgg a xeex. door. ba jël du am. jël na coup réparé jël na coup. mais coup boobu mooy mooy mooy mooy bu bi. jàppante nañu xeex eh, xeex coup perdu xeex door mu daanu mën na am nii. attention. da koo bëgg a génnee. bëgg a génnee Franc bañ. Franc bañ ci kaw. door door door door door war ko daan na daan na daan na daan na ko daa waa Franc daa mag ji lay laaj. ndeysaan daa kawoo. am na lu muy laaj. ana Konda lay laaj. ku muy laaj. ana Konda lay laaj. ku muy laaj. ana Konda lay laaj. lu mu koy doyee. nee na ko yaa ma daanoon. lu mu koy doyee. nee na ko yaa ma daanoon. Ah. ñëwal ma jël revanche. Ibou Laye maa ngi Serigne Fallou maa ngi lay maa fay bu baax a baax di la ziar di la sa wàccuwaay di nuyu waa Leral TV yëpp maa leen nuyu. Ibou Laye nga tëgg journée bu rëy bi mooy sa première journée ministre des bu fi bi daan euh, teewee rek ministre des sports tee na fi mais teewaayu Modou Lo sa digganteeg say xarit say am di jàmm ñëpp ñëwal nañu. waaw gis nga àdduna moom boo seetloo rafetal rek moo fi nekk. àdduna boo sëggeeg ñëpp jàmm ci demlante ñëpp boo wootee doo tiit gars yi xam nga ay borom baax lañ sëgg nañ jàmm sëgg nañ salaam sama bis bi gërëm naa si ñëpp sant naa si ñëpp ndax Fall woote ñu wuyu yombul tey su ma wootee sama première journée Sénégal yëpp ñëw wuyu si dama koy sant yàlla di ko rafetlu di si kontaan bu baax di ko sama yaay aussi. Ibulaay gis nga ni nga def arène nationale lan la secret bi lan la. waaw ay lamb yu neex rek. xam amateur dañu bëgg làmb yu neex te wax dëgg yàlla ak lu nit mën a wax Fallou làmb ji làmb ji ba mu taxawee ba léegi ku la gis lu mu lay wax ndax xam nga li nga tëgg ndax xam nga journée bi nga tëgg billaahi vraiment kontaan nañ ci lool lool lool d'abord di la nuyu bu baax a baax Fallou yow sama nit nga nit ku baax nga li ngay wax ci man yëpp ci yow la nekk parce que yaa ngi yëngu ci li nga xamante ne nii tey mënoon na la ci bañ a fekk yaa ngi jàppale néew di doole yi yaa ngi jàppale ñi nga tane Sénégal foofu la toll ñun jeunesse bi nañ jàppalante ku nekk rek loo tanee sa morom nga jéem ko taxawu loolu moom moo am solo di wax ne Ibulaay li mu am jomb na ndax moo rafet Ibulaay sonn na ci bésu ku nekk te ñun comme li may wax ñun suñu coalition maanaam ñun ni ñuy àndee du contre nature du dëggu la naturel ñooy toogandoo chaque jour donc tey bu amee bés ñu ñëw jàpp ci dañ ko fay borom parce que Ibulaay lu mu ñu defal mu ëpp fuuf en plus mu tuddee suñu grand frère Papa Sow combat nga gis mbaru parcelle yëpp ñëw tey sagal ko je pense que lii la parcelle wane na ne am na dayoo ci làmb parcelle wane na ne tey làmb am na fi nga xamante nii tey waa parcelle am nañ ci cër bu baax a baax a baax. tey bisam bi muy bii bi di première journée lan nga yëg bi nga duggee arène nationale. waaw yéen da xam nga tuddee dafa fort ki la tuddee si yow te xaaru si yow dara Ibrahima joxuma ko un franc defuluma ko dara dama ko tuddee te yàlla rek tax mu ne ma non non dama tuddee drapeau bi bu ma indil dara soxlawuma bu leen dara ñëw rek def remise trophée bi loolu sant yàlla la. moo tax dañuy ànd ànd bu ànd bu naturel quoi ànd bu naturel la ñuy ànd nekk ku baax moo di moo tax ma ma miin Ibrahima ko mais ma miin ko moo tax ma miin ko mais jàpp naa ko téye naa ko ndax Ibrahima nitu kese la quoi macha allah. Ahmed ak Loos doomu Diamaguène Ahmed ak Loos laal na léegi benn gauche Ahmed ak Loos jàppante nañ doomu Diamaguène amee Raglose mbokk yi amee Raglose doomu Diamaguène dóor dóor ku ñu ngi xeex de xeex ñoo ngay wuree ñoo ngay wuree doomu Diamaguène takk na ko e daan na la jël bi laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah xale ya taal nañu seen yooyu rek xale yi taal nañ seen yooyu oh. sëriñ Fallou ñu ngi lay delloo siyaar baax a baax borom màggal gi. tey mu doon bis boo xam ne si ni xale bi ko tëgg xamante ngeen muy xale bu yaru. xale bu baax muy Ibou Laye di premier journée tey ban yëg-yëg nga am tey. waa sant ci yàlla rek ndax bokk nañ ci ñi ko ko digal kon dañuy ñaan yàlla rek réussite bi yàlla na gën a continuer yàlla defal ko sutura ndax yar bi mu am moo ko may lii rek ay nit kenn mën leen a loué mais am na nooy mel rek loo tëgg nit ñi wuy si ji xolam la ko saa yàlla fay tey ci teewaay roi des arènes Modou Lo ci bis bu rëy bii ñu jël drapeau ko Papa Ibulaay ànd ak moom ba mu dégg roi Ibulaay moo ànd ak moom ba mu dégg roi kon lu mu dëgg da ko cee war a parce que Ibulaay amul dara lu lii nit ku ci nekk doo ko xeebal bisam nitam la xew xewle ne daa war a ñëw ñëw na. sa digganteeg jëmm ji nga xam ne kenn ngeen. boole leen di toog yéenay toogandoo sa diggante moom lan la. ñoo bokk ci mikaay parcelle muy Modou bi ñu ñëwee lañ ko fek mu doon xale bu am yar loolu la xam ci moom ndax lu waay wax di ko waxaat ci kanamu yàlla bu amal nu mel du ma ak moom dara. lu muy suul paxam mi xóot na de kii gas paxam mi xóot na kii gas paxam mi xóot na mbete paxu till kii gas lu muy gas noonu Mor Kang Kang Youssou Ndour arbitre bi sifle na diggante Mor Kan Kan Youssou Ndour Mor Kan Kan Youssou Ndour wure wa dem na kër waxi mbañ dañ na ndey taali Mor Kan Kan Youssou Ndour mbokk yi Mor Kang Kang Youssou Ndour mbokk yi ci arène mbokk yi drapeau ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang moo ñëwoon ginnaaw Youssou Ndour moo ñëwoon kanam moom la ñu jàkkaar lool drapeau Pape Malick ministre de la jeunesse diggante Mor Kang Kang Youssou Ndour mbokk yi Youssou Ndour méb na Youssou Ndour méb na Youssou Ndour Youssou Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Youssou Ndour Mbour Kang-Kang mbokk yi jël na ko dóor dóor Mbour Kang-Kang Youssou Ndour du génn du génn du génn jël na ko jël ko mo eh eh Youssou mi bë bën na bëre de eh jël ko fàq na ko lu fay xew eh lu la Youssou Ndour takk na ko fii lay jeexee Youssou Ndour ngay door mu ngi door dina ko mu Youssou Ndour ngi door de Youssou Ndour moo kankang Youssou Ndour moo kankang Sa Thiès nooyeetul Balla Gaye nooyeetul Mbaye Gouye Gui nooyeetul Mor Kang Kang Youssou Ndour teere yaa ngay dagg Mor Kang Kang Youssou Ndour mbokk yi Mor Kang Kang Youssou Ndour eh. Mor Kang Kang Youssou Ndour attention Mor Kang Kang Youssou Ndour bon nga koo bëgg bëgg na eh arbi lii lan la lu xew lu xew waaw waaw c'est normal Mor Kang Kang Youssou Ndour Youssou Ndour équipe Balla Gaye 2 équipe Balla moor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour jàll fam ko mais Youssou dafa diis te Youssou gis naa bëri bëre bu garaaw ci moom ba pare mën na bëre am na doole. gis naa ne saa yu ko Mor bëggee bët Youssou Ndour di ko bloqué ak loxoom bi ci suuf Mor Kankang Youssou Ndour Mor Kankang Youssou Ndour drapeau Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse Mor Kankang Youssou Ndour Youssou ngi dóor pour Mor siggi mais Mor day bañ Mor Kankang Youssou Ndour Mor Kankang na def ndànk ci combat bi bu teeyul ci combat bi dina am lu ko metti Mor Kankang Youssou Ndour Mor Kang Kang moo ñëwoon ginnaaw Youssou Ndour la ñu jàkkaar lool Ardo waaye arbitre bi waay waaye arbitre bi waay yaa mën a arbitrer oh arbitre bi waay Mor Kang Kang moo ngay faju Mor Kang Kang moo ngay faju Mor Kang Kang Youssou Ndour Youssou door Mor Kang Kang dëggal na boppam de Youssou door na eh door door Mor Kang Kang jël nga coup de jébbalu na jébbalu na dalay rey de eh dalay rey de dafa diis Youssou Ndour dafa diis Youssou Ndour dafa liggéey ci combat bi Mor Kang Kang Youssou Ndour supporters yi doon wax noppi nañu ñi doon yuuxu di sar xolle noppi nañu waaye màggal Touba gi yàlla ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm Mor Kang Youssou Ndour Tafatine bu Kër maa ngi lay nuyu Tafatine sama xarit sama lépp di nit ku baax maa ngi koy nuyu Baye Assane jàmbaari Serigne Abdou Karim nga xam ne Serigne Abdou Karim lay nooyee Baye Assane jërëjëf Mor Kana gi dóor Mor a ngi dóor <coughs> eh na ko wuy sama nday jël bi nay na laa ilaaha illallaah fils de Balla fils de Balla fils de Balla fils Balla fils Balla fils Balla fils Balla laa laa ilaha illallah forum la eh eh lu ñu waxante woon dafa diis moora ngi noonu moora ngi noonu mbokk yi jërë ngeen jëf ànd bi ngeen ànd ak leeral TV leeral point net amaat nañu mbégte kontaan bu baax a baax tubaarkàlla liggéey bi ngeen liggéey ak ñun tubaarkàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi Mor Kang bi damaa yaakaar ne joxoo ko cër adversaire bi kii moo la jiitu ci làmb xëy na moo la jiitu ci làmb wala jiitu wala ci làmb mais Youssou Ndour ndaanaan la dafa donn bëre saa Thiès indi ko Balla Gaye indi ko Fils de Balla indi ko Lirou Diane indi ko ñu mel noonu booy bëreeg ñoom da ngay bëreeg ñoom ci dal da ngay bëreeg moom ci dal waaye tamit xale nga làmb nga ci ginnaaw ful bu nekk ci ginnaaw rek gis nañ ko mbokk yi làmb ngi nii di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV